mooy internet bi rek yooyu dañuy faral di bind naan Moustapha Niass du dem Touba bànneex du dem Touba moom lu tax du fi teg tànkam loolu question bu dana la ko laaj. comme que yow jóge ah, ñaar wala bu ñëw du ko gis kon xam naa. xam ñoo ko wax. man di sama kër lay dal. <laughs> sama kër lay dal. te a Seex Saalihu Mbàkke xam naa ne xam naa diggam ak moom léeg-léeg sax day ñëw ma bàyyee leen ndax jooy yu tar ya muy jooy ak bëgg gëm bëgg sëñ Saaliw ak na mu doxe moom Moustapha Niass maa la wax loolu amut sago amut ci sago sax far dal gi ngay am wala man ma am ko bu nu janloog sëñ Saaliw moom amut googu dal kon kooku bëgg na Tuuba te it projet yu bari ci dëkk bi ci eh, ndax moom eh, état bu ne jàppal ndax Senghor ma doon directeur cabinet am hmm? nekk kilifa di ko nekk di nekk état gouvernement bu ne la nekk Touba ci ab liggéey la ci ëpp xam na ko te ma nga woon ci biir ba mu nekkee premier ministre ak bi mu toog tey jii mu ngi ci liggéeyu Touba bëgg ko lool nag da bëgg njaboot sëñ Touba na man ci njaboot gi laa bokk. Euh, bi mu jaale see sëriñ bi la fi gëj euh, sëñ Muntaxa te booba it ci man la jaar waaw ndax man bis ba ma ko jëkkee gis sëñ Mbàkke mu sëñ Moussa may moom laa àndal dem këram lam ma wax ci sëñ Touba ba ma ko laajee sëñ sëñ Saaliw dani ma wax na dëkk may dund ak moom loolu kon nag waxi sëñ Saaliw euh, kaneen kuy wax la neen yaa ngi wedd jooju wax waaw ndax moom du wax ci bakkan te it ba muy nekk directeur cabinet la jaaxasoo ak sëñ Saaliw loolu taarix du ko mën a wax léegi nii ak alaaji Jili Mbay ak na mu ko ànde ba mu àgg si fii nga xam ne fi mu àgg ci Touba sax du neex a wax ndax dafa bokk ci tariixa boo xam ne nii am na ñu leen ñu leen di déglu mu jël cofeelam gu rëy dugal ko ci sëñ bi du neex a wax loolu ndax fi mu toll ci réew mi xanaa kay nit ñi man ni ma koy gis rek mooy ñoo neeku la waxal dëgg-dëgg waaye ku toll ne ñaas ku ko am ci réew sax danga ko war a téyewaat ak su fukki loxo ndax mag mën naa bàyyi ci dëkk ñoom dañoo xamul rek dañoo xamul rek waaye bu dëkk bi lëj lëjul ah président de la jàmbaar la lool waaye ñaas jàmbaar la lool loolu de man man naa ko te man nag man li may wax ni ah, waxuma ko ngir sama xarit rek dama ko dund ak moom gëm ko ndax man sama mbir ku dul yàlla noppi nga ci du kenn nag koo xam ne nii mën na maa wéeru ci yow bàyyi yàlla ndax kon da ngay daanu moo tax may wax loolu ci président ñas e, ginnaaw loolu dugal nga ko ci képp ku jàpp ne daal da dul ñëw Touba da koo bëggul moom kooku mën naa ko weddi ndax man lu ma am sëñ Touba te bëgg na ma te bëgg naa ko te taalibe bi boo xam ne nii xam wax nga loolu ci moom ba jàpp ne yow yaa ko gën di yaa ko gën a bëgg sëñ Touba bu dee bu dajee maag yow ak moom ci moom da nga xeeb sa bopp ndax danaa la wan ne bëgg naa ñes loolu man itam te danaa la wan ne sëñ Touba bëgg na ñes te danaa la wan ne sëñ Touba it mën na koo fay ndax ndax la mu ciy jëf xam naa ko